man la Diarra Sow euh, nekk présidente euh, association Al ak association des mères d'élèves de Kabatoki et de Sing Sing waaw euh, li waral ndaje bi comme niñ koy faral di defee rek par rapport ak suñ mag di doomu Kabatoki di directeur général bu Senelec Pape Demba bi tey comme ni mu ko doon defee avant muy dugg ci politique en 2010 bi papaam génnee àddina nga xam ne moom moo doon politique ñu doon ànd ak moom di liggéey fii si biir Kabatoki bi papaam wàññeekoo mu ne woon fi papaam teg tànkam daf fay teg tànkam en tant que doomu Kabatuki doon yëngu si social di jàppale waa dëkk bi te di fi def lu baax ba yàlla def 2017 mu dugg ci politique 2019 président de la république nommé ko directeur général bu Senelec boobu ba léegi lekkul dara bàyyi waa Kabatuki chaque année nag day indi suukaru koor ren mu defaat ko mais at bu jot gis nañ ne lu mu def ren rek bu dewee nee day def lu gën a bëri ren nag suukaru koor bi mu dugal Kabatuki bàyyiwul chrétien bàyyiwul musulman bàyyiwul benn kër nombre de maison yi am Këbatooki kër gu nekk Pape Demba dugal na fa suukaru koor boo xam ne ba mu duggee ci kër gi borom kër gi xelam dal na ñoo waraloon ñu daje fii tey di ko gërëm di ko sant di ko remercier mais di remercier président de la république bi nga xam ne tey moom mooy jël suñ doom jii di doomu Këbatooki di doomu Kaolack dénk ko Senelec dénk ko ko nekk ndax compétence am muy doom ju yaru bu xam li muy def bu mun liggéeyam nga xam ne tey Pape Demba kenn mënu ko génne si Afrique de l'Ouest tey si compétence yi am ci Senelec di wax ne tamit social bi muy def yemalewu ko si suukaru koor ndax man mii di wax nii weer yee passé rek jox na ma fi 3 millions 800 pour financer les associations de femmes yi nga xam ne ñoo nekk fii Kabatoki muy 38 associations mu génnee valeur 3 millions 800 jox leen pour ñu liggéey mun a daan seen doole. di wax ne bi mu ñëwee si dëkk bi tamit ba léegi suñu rongoñ dafa fer loxoom mu ngi ci jàkka yi mu ngi ci jumaa yi lépp lu xew Pape Demba dugal na ci loxoom. gis nañ poste de santé bi tey maternité bi mu fi construit plus de vingt millions gis nañ école bi lim ci def gis nañ côté jeunesse bi formation yi muy defal jeunes yi ñii mu leen di recruter ñi nga xam ne amuñu formation mu leen di fayal formation pour ñu liggéey donc di wax président de la république ñu ngi koy dénkaat suñu mag ji di doomu Kaba Touré di Pape dembe bi tey nga xam ne lépp lu mu am tey rek delloo na ko ci base bi te yemalewu ko Kaba soo seetee banlieue bi benn benn benn benn dëkk la muy Kaba Touré Sing Sing Lindiane de euh, suukaru koor bi dugal na plus de 3 millions linjaan te loolu la def sing sing lu ko raw la def ko ba tuuti moo waraloon tey suñu suñu ndaje bi pour remercier ko gërëm ko sant ko dénkaat ko président de la république na di ko wax ne mu téyel ñu Pape demb bu baax di wax waa Kabatoki ne Pape Demba tey waru fi soxla dara mu ñàkk ko kon bu ñu gën a gore li mu fi def na boppam la ko defal mais ñun aussi suñ ko téyee suñ bopp lañ téye. man la maa Sankhare dëkk Kabatoki c'est que Pape Demba bi tey nuyu naa leen yéen ñi fi toog yëpp. mag ak ndaw ah, man de seen mag laa seen yaay laa seen lépp laa xale yi nag téye nañ ma téye boo xamante ne fii bu ñuy natt fii la natt see altine bu jot dañuy ñëw fii di daje di natt sama buntu kër gi kon nag Pape Demba bi tey ah zéro faute Pape Demba bi tey zéro faute bi tey bi mu jëlee politique bi ba léegi fii kabatoo ki bàyyiwul kenn du góor du jigéen du mag du ndaw mu ngi def si ñun lépp lu ko war mu ngi koy def fii si Kaba Tooke nawet bi bi mu ñëwee sama kër gi dafa suuxoon mu ñëw yebal fi ay ndaw ñu ñëw indil ma xaalis ma jënd suuf ak ciment defaraat sama kër gi renati mu ñëwati indi ay suukari di ko joxe suukarikoor bi keroog bi mu yegsee fii xale yi dañ ko indi maa ngi woor de dañoo yegg si rek xale yi dajji saako bi ma jóg di fecc Pape Demba bi tey yal na ko yàlla jàmmal Pape Demba bi tey moo xam fi mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggaloo mook président Pape Demba bi tey ni ñu bettee bànneex yal na ko yàlla bettee bànneex. man la mbenn cubbu yaayu Bamba Fall xaritu Pape Demba <laughs> maa ngi dañuy ñaanal Pape Demba rek Pape Demba mënuñu koo fay. depuis école bi muy tijji am na ñu am am na ñu amut mais ñëpp la jëndal kenn jëndu kay ak bic ñëpp jëndal na leen kay jëndal leen bic jëndal leen li mu war a li mu war a jàng at bi yëpp par démb bi tey jënd na ko taba eh, eh, koor gi mu def ko te njëkkewu ko rek ci koor gi njëkkewu ko ci école bi muy tijji par koor korite tamxarit lépp lay joxe fi mu nekk nii ñëppay togg ñëppay yekk ñëppay def lépp par démb daal ñu koo fay. maa ngi tudd Mamy Coumba Sarr doon présidente euh, groupement takku liggéey bu Kabatuuki li nga xam ne noonu la Pape Demba di def si dëkk bi ñu rafetlu ko bu baaxi tamit euh, barki démb semaine bi mun naa wax ne li mu dugal Kabatuuki nit ñi naw nañ ko rafetloo nañ ko mun nañ wax ne jox neex na trop alal nga sa alal nga joxe ko neex na trop mais joxin bi moo dàq te ni mu ko joxee dafa rafet ndax bàyyiwul kenn bàyyiwul xaaj ji bàyyiwul seen ñu koy wax nag ne fi mu teg loxoom foofu la te ñi koy diktal fi mu toll nii ñu ngi koy diktal li nga xam ne lu baax la te moom mu ngi koy jëfe ñu koy wax ne nii moom na dem ci kaw ci kanam ndaxte tey moom doomu Kabatooki la Kabatooki la juddoo fi la màggee fi la amee yaa am ak baayam fi lañ nekk kon bu soxlaa Kabatooki dara mu teg ko rek xamal ci jëfinam la te lii muy def nii nag rafetlu naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax te nee naa ko lii moom ci kaw ci kanam rek ndax ñun amuñ kenn ku dul moom.